jërëjëf euh, Abdoulaye Diop jërëjëf auditeurs yi nga xam ne ñooy déglu RFM yëpp maa ngi leen di ziar euh, di leen euh, baalu àq di baal ñëpp àq jërë ngeen jëf kontaanaat encore une fois di ñëw ci seen journal des faits divers xalaas ci rajo bu mag bi RFM 94 point 0 Ndiaye maa ngi lay ziar. maa ngi la koy delloo a wér Ababacar. maa ngi nuyu waa Sénégal. Mhm. di leen sant di leen gërëm. di leen ñaanal jàmm akuk wér. Mhm. am na solo. Mm. mel sama waa jëng ci ligne bi de. salaamaaleykum <laughs> euh, Aliou Ba euh, lijjantil ma problème bi foofu après ñu xool la. Euh, Ndiaye fi ñu toll nii xalaas bi njëkk lan la wax wala balaa ma ñëw ci yow nañu dem ma nuyu sama waa bu baax. bu la ci rek. baan. Ah, maa ngi lay ziar. ça va maa ngi lay ziar bu baax. fan ngay woote ni yaa ngi hôpital wala yaa ngi yaa wala yaa ngi sa kër. non maa ngi maa yaa ngi Pire nii. waaw. maa ngi lay ziar. maa ngi ziar ñëpp di lay ziar njaay di leen béggee bu baax di ziar waa Sénégal gépp di ñaanal ñëpp jàpp. am rek. Hmm. yàlla nañu def ñëpp am jàmm. Hmm. ñëpp am jàmm rek. waaw ñi ñëpp am jàmm. ñi ñi ngi sant yàlla bu baax a baax a baax. xam nga lu ma jaaxal. ah. oto bi ñu ma wan keroog ne ci nga duggoon. waaw. tey jii nga toog di wax ak man nii. waaw. ban war sant yàlla de. moo tax may sant te ñaanal ñëpp am jàmm rek. Hmm. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di sant uh, sunu waajur yi di sant kilifa yi ci réew mi yëpp ak hmm. ñëpp ñi nga xam bëgg nañ jàmm rek ñu ngi leen ñaanal jàmm ñi ko bëggul sax ñu ngi leen ñaanal jàmm Ndiaye. Hmm, sant ma ne ko sant yàlla day ñëpp la war waaye war nga cee góorgóorlu. mais mooy Ndiaye a dem rek ku sa rek. waaw waaw bi laa dëkk ci moom koy nañ ñaan jàmm rek ñun ñëpp am jàmm. yàlla jàmm yàgg. daal so so wax njëkk. ak ju mujj mooy na ñëpp am jàmm rek. mais ban fi ñu toll nii oto boobu xanaa du euh, fi ñu toll nii moom oto baa ngi suñu ginnaaw de. oto boobu fi mu ne nii du ma ne mënuma leen ni fii la ne sax. waaye lonk nañ ko ba yóbbu ko. yàlla yàlla na yóbbu sa ay. na yóbbu lépp. amiin amiin amiin yàlla yóbbu sa ay te yàlla mayaat la beneen oto bu bu gën booba. Mhm. amiin amiin amiin amiin ju bari indi jàmm ju bari. waaw na ñëpp am jàmm rek. ay ca lu xalaas bi wax yow ci euh, Ndiaye. kii day nee na moom ci bagaasam la moom bi sax ko Ndoye Bane mu ne. kii dafa am ku ko hébergé woon. <laughs> dégg na ne dégg naa Ndiaye mu ne mu ne yow ndeke taloon nga di di lijjanti xalaat. man kay damay ragal bisu penc yàlla àtt nga naan ko may ma jël ko rek. extrait bu ndaw. <laughs> professionnel la dafa bëgg liggéey. yàlla may ma tuuti rek ma jël ko extrait bu ndaw soo ko ñëw ñu yeggale. dina ana passe partout. fexeel ba buñ dajee yomal xiyam bu ma tàllal loxo. <laughs> xaw ma la xamoo ma. waaw abaa nañu yokk temps bi de moom day fekk yàlla di àttam abaa waaw dañoo war a yokk temps bi temps bi dafa ndaw nañu ko yokk. waaw waaye ban waaye ban nañu. wala mu naan yàlla sa jaam yi bëggante wuñu. waaw. <laughs> yooyu yëpp nañ ko lijjanti bi nañ ko lijjanti bi àdduna bala ñuy bala ñuy dem yomal xiyam yàlla na yéex. mooy dëgg de waaw yàlla incha allah yàlla waaw ñëpp am jàmm rek. kii mu ne dafa hébergé woon. Brésil coow la fa am. waaw dégg ngeen ko ci ci weekend bi weekend bi gudd. Mm-hmm. mais Brésil dafa am benn waajoo xam ne dafa rey benn xaritam benn ku waaju naan Bilal. yu uh-huh. fa rey ku naan Assane Diouf. Uh. ci waxi nit ñi nee nañ ko doo doon da ko doon fii rek jabaram ci waxi nit ñi wóoruñu. maanaam Bilal moo rey Assane Diouf. waaw coow li nag bari na ci lool lool. lool lool Bilal nee na Assane Diouf ak jabaram wóoluwu leen woon. wóoluwu leen woon. ok. gis nga nam ko rayee woo ko téléphone jox ko rendez-vous fenn ray ko dugal ko ci kees sànni ko ci fu ñuy tuule mbalit léegi nag su yu mel nii amee coow li day bari mm-hmm. jabaru ki nga xam ne moo assassin bi moom moo mën a wax te jabaru assassin bi dafa nekk sous le choc instant bi fexe nañu ba lijjanti kër mu ne ka jamono ji moom mooy témoigner noonu jox hmm? waaw ki nga man la nekkoon mais fee taxoon mu nekk ci man mooy benn xale bu góor bu ñuy wax Yuusu xaritu Bilaal la di jëkkëru Kura ndax Bilaal ba Kura bëggee liggéey Yuusu la gis Yuusu ñëw gis ma wax ak man ma accepté Kura commencé di liggéey ci man ñuy liggéey di liggéey di liggéey presque yàgg na je crois ba mu commencé liggéey ci man 2015 la xaw ma 2016 léegi ñu nekk du nekk di nekk ba ne instant bu yàgg ba nga xam ne benn moment été jot na fii Brésil ci la Kura quitté ba Kura kité dem Espírito Santos muy ginnaaw Rio de Koura ba muy quitté fi São Paulo en 2016 ay coow moo taxoon mu quitté ko fi parce que benn ñàkk bu ñuy wax etekaam bu ñu dendal place moo ko fi musa wax feliz nataal comme bu décembre jotee ñun ole ko ñu ne la bon année dañ lay wax feliz nataal léegi ba ko ñàkk boo waxee feliz nataal jëkkër ji indi fi problème yu dul jeex en 2016 mu léegi jabaram ca la quitté jabaram mu ne moom rus na ñëwati fii di liggéey jàppante fi jàppante bu metti en mu jël jabar ji ànd ak moom d Esprit de Santos ba mu demee esprit de Santos mi nekk fa muy ginnaaw Rio de nekk fa nekk fa lu yàgg ba yàlla may leen fa tuut tànk ñu ñëwaat jamono yi ba ñëwee jamono yi ci ay deux mois lay toll ñu nekk fi nekk fi kenn xamul nag lu mu def esprit de Santos boobu ba delluwu fa ak lu ko fa jëlee ñun xamuñu ko moom moo ko xam mais dañuy for ci wéeru bay naan dafa def foofu ay dégâts ay menaces comme ni mu def fii moo ko indiwaat fii mu ñëw basé wax São Paulo mais gëjoon na Sampolo presque 2016 je crois ba Koura bàyyee noonu rek ba mu fi indee problème yooyu ci la ko jël quitté ko déplacé ko ko beneen dëkk boo xam ne amul ay sénégalais comme Sampolo mu nekk base sénégalais marché bi fi la nekk mu daal di ñëwaat jamono yi comme ni ma la ko waxee nekk fi mais xamuñu lan la fa def comme la ma la ko jógee jëlee fii mën na ko faa def foom tam xam naa mu dellusiwaat Sampolo ñu basé fi Assane mi tey nekk xaritam moo ko utal néeg mu nekk séq ak ñoom jàmm ak salaam comme ni ni mu ko séqee ak sénégalais yépp mais jabar ji bu ma waxalee sama digganteek yàlla ndax jabar ji la may am joxuma ko mbokk ay mbokkam joxuma ko dañuy wax ndax yàlla moo ñu boole ak moom kon tam ñun tam ñu wax suti ak wax dëgg jabar ji mosu ko traité normal du yére du dàll du lekk bu doy du naan bu doy du dara ba ñu ñëwaat fii ba ñu ñëwaatee fii mu ngi topp di menacer ndax man maa yor restaurant ci marché bi ñu nekk léeg jabar ji comme nii na doon na liggéey ak ma restaurant te moom manga nga seeg fa ñu dëkk fële jabar ji xamu fa kenn léeg mu ñëw ñu ñëw doxantu ñëw ba foofu te doxantu bi nu muy demee da koy tëj buñ te fanaanee bu ko tëjee ba su ba cinq ci ngoon wala ba six ci ngoon la koy libéré mu ñëw sama place bu lekk gi pare ñu del si liñ ciy jël mu in jëlaat ko ne ko six heures ngay génn mais neuf heures ngay duggaat sa néeg bi dëkk moom loolu nekk ak moom loolu ba benn jour ñu toog sama place muy menacé ay nit ba ko tegri c'est une semaine am na comme fi njëkk a menacé ku nekkul saam ba jël paaka génne ko ba ñun ñëpp ñu daw atte mu oodoo saak jël paaka def ci pliweer lëmas ko oodoo saak ku mu seen nga dugg génn mu ne jabaram moo tax nga dugg ci restaurant bi mu mel ni koo xam ne anut ak sagoom ndax ma demoon naa wax jabaram ki dafa mel ni anut ak sagoom ndax xam nga am na yoon xam boo koy jëfandikoo da ngay dem sago day dem après am benn moment tam am na lu ma tëb nekk na Esprit Santos fa nekkoon ginnaaw Rio de Janeiro tëjoon na fa jabaat ji cinq mois yoo xam ne géesul biti lekk gi daal moom bu xëyee huit day dem bu dellu saat ci wër kër gi ay neuf heures wala ci guddi heure añ bi daal lay ñëw ubbi néeg bi dugal benn marmita bi ñu wax arros faison dugal ko ci néeg ba comme doom jàng fa nekk doom ji la xamutoon nu mu koy def bu ko dugalee demaat boobu la moo ñëwaat 9 heures ci guddi ba 5 mois yi mat def na jabar ji torturé bu ne ndax jabar ji tey bu fekkoon am na lu ko gënal yaayam ma nga Sénégal moom mooy jël xaalis di ko yónnee jabar ji pour jabar ji am yenn besoin yu mu bëgg a jënd wala dara yaakaar naa loolu ku yor sa jabar yor bu normal yaayam di ko yónnee xaalis même géej suñu demee été ji jabar ji métier mooy létt du ko bàyyi mu létt da koy jox kaaka mu téye mu jël doom ji dem dénkaane ci ay tubaab bu jaba ji ànd ak moom di jaay lu jaba jaay mu jël ko bu jaba ji toogee di noppal sax mu ne ko war a toog nopp ci ak géej ak dox géej ni mu méttee jaba ji moom lu métti mu ko dóor di ko torturé am na yenn photo yoo xam ne yor naa la ko dinaa la ko envoyé pour ngeen xam yéen ñi nga ne yéen nekk RFM ngeen xam ndax Sidi ñu ngi bind ñu ngi bind te xamuñu lu ñuy bind ñu ngi naan dañ ko fekkee Assane Diouf ci kaw loolu yëpp amu fi ma yeggale nag wax ji ba mu jëw nag benn jamono ba mu fa defee menacé kooku ci jour ba menacé waa ji génne paaka jaba ji tibu reer ñu ànd dem ñibbi ci la xëy ci guddi ay cinq heures du matin mu jël jabar ji dóor ko dóor a dóor a dóor ba jabar ji ñu naan dund na wala deen jàpp bopp bi di ko mbëkkal ci miir jabar ji daw nëbb sama néeg ay six heures du matin mais ban waaw kii di wax ni moom moo hébergé jabaru waaji mhm. waaw pas waaji ñu rey mais waaji rayaate waa waaji rayaate mhm. ok ndax jabar ji da doon ñaan baat ak yooyu yëpp mais jotul euh, tas daal fi mu nii mi ngi ci kër ndaw soos doon wax. Hmm. ki ci topp. Hmm. mooy xaritu waa ji ñu rey. Hmm. ok déglu ko. ba dawee ñëw sama kër ànd ak ay yuuxu yu métti. mu ne ko lan la mu ne ma diw de daf ma doon dóor ba di ma mbëkkal sama bopp bi ci miir bi moo tax ma daw ñëw ma ko comme dafa teel te ñun ñu ngi ay 6 heures du matin Brésil. problème bi moom dafa dem ba ëpp ñu loxo ñun ñuy nekk fii parce que fu mu nii ku nekk yaa ngi jël version bu la neex di ko commentaire wala di ko waxee bañ na ko ba YouTube sax bëggatuma fa dugg di seetaan wala Facebook tey jii ak wax ju ñaaw ju ñuy jël di ko teg si ki nga xamante ne tey génn na àdduna faat nañ ko génn na àdduna wax ju ñaaw ju ñuy jël di ko teg si kawam waaw métti nañ loolu lépp la moo ko waral sociaux yi ak gaa ñi nga xamante xamul nu mu demee ku nekk jug di wax Assane Diouf jëwrin billaahi wallaahi taalaahi Brésil laa ko xamee mais moo gën a ragal si àdduna du tooñ maa ngi moom buñ jàppantee xuloo nii sax moom moo may jéggulu parce que Serigne Saliou Mbacke parce que nit kooku du tooñ borom baax la Assane Diouf bu jote woon nag bërëd bii rey ko nii Bilal barki Serigne Saliou Mbacke man dana ma ko wax te dinaa xool man nu ma ko arrangé mais lu ñuy wax rek seytaane bëri doole te affaire bi am na lu bari luus luus est-ce nga affaire bi am na lu bari si luus loo xamante ni tey waxuñ ko est nga Assane moom bu jote woon ak Bilal lundi si moom ñoo nekk ba trois heures du te buñ jote woon man dina ma ko expliquer parce que xam naa ni nit kooku dafa ragal ku mu amal problème danañ ko wax quoi pour ñu arranger ko xool nu mu demee mais yàlla rek moo xam mais man tey ñeme naa toog ne Assane Diouf tooñul bërëdë bi quoi barki Serigne Saliou Mbacke jotewun dara man ñeme naa wax loolu xëy na bërëdë bi mën naa dégg ay rumeur nag dal si kawam comme nu muy déggee rumeur si yeneen gars yi di leen mais ku ma tegaloon kaamil ma rëkk ko si ah xam ne Assane Diouf toonu ko quoi rey na ku ragal barki Serigne Saliou ñoom ñaar ay waay lan ñoom ñaar ay xarit lan ñoom ñaar sekk nañ liggéey ñoom ñaar Bilal nekk na benn dëkk Assane dem fa ñoom ñaar ñu sekk ay teranga sekk liggéey ñoom ñaar sekk nañ lu ne ay xarit lan tey ku ne du na ay xarit rek naa feex nga ñoom ñaar ay xarit lan xarit gi ñu nekk moo waral Assane tey dem néegu Biral tey ba jëf ci am fa ñoom ñaar ay xarit lan man ba ma yégee ni dee na jeudi la te mardi laa dégg ni lan ko rey te ñun mercredi su guddi lañ ko demoon seeti ji ba jeudi ñu koy seet te soog bi amoon na ñun yëguñu ko waaw mais moo taxit gars yi nag ku siy wax rek na nga wax li nga xamante ni maîtriser nga ko parce que fu mu toll version bu nekk mu ngi jug ku nekk ngi wax ay nit ñoo xam dañ naan moog Assane ñoo bokk lal bu ñuy tëdd ay Bilal da ko daggateeg gars yi version bu ne la ñuy loolu lépp dara amu si wax Bilal da ko dagatee da ko def lii da ko def lii yooyu yëpp dara amul rey na ko néegam génnee na ko loolu lépp seetaan nañu vidéo yi bañ demee morgue ba wan ñu néew bi nga xamante ni ñaari jam-jam lañ ko jam fa la yam mais ay dagat yu ñuy wax benn cër manqué wut ci moom. Euh, et puis lii ci gën a mooy information yi ñu lay jox moo ni euh, gën a garaaw mooy information yi lay jox. dafa mel ne wax ji jeexagul de. wax ji jeexul dégg nga ko mu ne euh, dara kiiw ko ñu wutal waa ji. kenn daggatewu ko ñu bari dañ ni dañ koo daggate dugal. ci saako mm-hmm, waa ji ko mm-hmm. koo dóor parafet jam ko paaka dugal ko ci kees. bi mu ko dugalee ci kees nag woo na benn taximaan sénégalais pour mu ñëw jàppale ko taximaan mu ni ko damaa yàpp mais terewul romb na ci côté mais am na beneen sénégalais bu mu woo kooku puusle ko ko mais sénégalais boobu doon ko puusle kees gi xamuloon lu Assane doon sànni foofu bu lu lu Bilal doon sànni foofu. mais vidéo surveillance ñoo filmé bi muy sànni affaire bi ci mbalit mi buujumaan yi nekkoon foofu ca Brésil ca wetu mbalit ma ñoo alerté police ñu ñëw mais vidéo yi génne na ko bi muy génne ci kër gi di yóbbu koor bi ci ak kees gi ci mbalit mi. léegi waa ji moom lu mu doon ñaawlu moom. Euh, li mu doon li muy ñaawlu mooy yenn information yi génn. Mm-hmm. ñu naan dañ koo dañ koo daggateeg. Mm-hmm. dañ koo def lii maanaam yu bari yoo xam ne moo daw ci wiken bi. xam nga ah, waa ji euh, ban waa ji moom yabuñu. kan ci. waa ji doon wax sànq. ah lu tax. mais ngan gu yàqu gunge defaru ko da koo jam ak da koo dagg teg li am mooy rey na ko rek. mais nag mais rey na ko mais tàgg teewu da ngay li li ne moo am te wér. waaw d'accord mais gis nga ku dee ci marché. waaw soxlawul ñu lay ci néeg la dee nag. non waaw dama lay wax mais dañ koo rey. <laughs> waaw ñun xoolal ñun avant ñuy wax reyin wi. waaw nañ wax ci rey gi ba noppi. voilà léegi nag reykat bi ci boppam. waaw. bi mu rayee waaj Assane ba pare dafa génn am ku mu menacé ni ko foo nekk soo xamoon li ma def yow laay wër pour def la ko nangam déglu ko. ay affaire moom bu ma ko déggee moom métti na trop ndax Bilal moom Facebook la ma woo quoi Facebook la ma envoyé message dama envoyé ma sa numéro. ma envoyé ko sama numéro après mu commencé di wax audio yooyu quoi te man wax dëgg yàlla Bilal moom man ak moom jàmm rek la ñu seq quoi jàmm la ñu seq amuñu benn xaar ma yàlla man ak moom. waaw oo ma benn xaar ma yàlla man ak moom. bi ma waaye doom day amul de man deew ma ba kenn di doonu sama jabar. déggoo li ma la wax xanaa barki alxuraanul karim démb gisoo ma sampolo tey gisoo ma fi laajal la ma def foofu noonu te maa ngi ñëw. bul fawee sa bopp bi bul fawee sa xel mi li nga def lépp xam nga ko li nga def lépp xam nga ko say photo ngi si man booy yow da nga dégg xanaa déggoo li ma la wax. barki alxuraanul karim dinaa la rey. billaahi wallaahi dinaa la rey. billaahi wallaahi bu ma agsee fu ma jëm nga xam ne lépp dëgg la xamoo li ma capable sax xamoo li ma capable kura du faat sàmm du du ay millions yu bari laa fay indi ko fi sama jabar kenn du ko fawee billaahi wal ma wax wax kura du tala du karaa du karla du faat sàmb du ma talaa déggoo li ma la wax de kura dama fay ay yu bëri indi ko fi sama jabar ku koy xool yenn bëri wala nga koy jéem a fawee mag boo yow xaar ba ma ñëw sàmm su ma agsee rek nga xam ne lépp dëgg la bu yoboo nga fay say bor wala nga génn sampolo barki salaatul faate bu ma la rayul rayul la billaahi wallaahi laaj ma kura li ma capable ba ma agsi ak jàmm billaahi wallaahi ba ma agsi ak jàmm kura du karla kura du faat sàmm kura damaa fay ay yu bari indi ko fi sama jabar kenn du ko fawee loolu nag na ngeen ko dugal sa bopp maa ngi ñëw te bu ma ñëwee li nga lab di nga ko fay barki Cheikh Abdoul Karim Mbacke yaa ma tax a génn bu ma accès naa la def ñëw billaahi wal kitaab yaa ma tax a génn Sampolo ñaari fan yëpp ci say tànk laa nekk déggoo li ma la wax de ci say tànk laa nekk fi nga dëkk fi ngay dugg lépp xam naa ko yow sam dalal ba ma accès rek Saam yow laay waxal xam nga ne yow laay waxal Saam yow laay waxal man Bilal maay wax ak yow man Bilal maay wax ak yow maa ngi dem maa ngi ñëw li ma la wax lu ko def sa bopp bu baax li ma la wax na ko def sa bopp bu baax. non jarul yàkkamti jarul woote bu ma accès dinaa la wan lan laa capable. waaw c'est l'assassin assassin bi moo def loolu. moo doon wax waa ji naan ko ay maa ngi nii di ñëw. bi ki bi mu rayee kee ba pare. Mhm. la woo keneen pour dem ray ko. bëgg ngaa dégg keneen ki waaw. xëy na def na mais def nañ ko de. ah loolu moom yàlla rek moo xam. loolu moom ñoo c'est-à-dire li ko tax a déggoo ci biir yi xam nee na. waaw diw mi. waaw du diw du diw kii sama jabar la maa ko fi indi kenn du ko fowe. waaw moo tax man la def na. waaw waaye def nañ ko. mais est-ce que foogul ni dañ koo def. waaw waaw euh, c'est que nag loolu xam nga Ndiaye fiiraange Ndiaye fiiraange mën na lu ne ah man tamit. Ah, euh, mënu ma ci avancé waaye. Eh, waaw Ndiaye. waaw nee nañ ma. ci mhm. ay waxu lool nag wóoru nee nañ ma li mu def nii Brésil def na ko Sénégal. Uh-huh. def na ko Brésil bii mooy troisième fois ma nag ay wax yuñ ma ay information yu ma jot la ñu ngi koy vérifier. te baan waaw. femme bi njëkk a wax. waaw nee na yi muy utiliser ku koy utiliser mën nga di aaloog di tàngaloog yooyu. xaw ma nag yàlla utiliser Ndiaye yónnee naa la ay photo ah, euh, euh, dóor yu mu gis nga ab sàmm bu bëggee rey xajam da koy jëñ ràmm. waa gis nga photo yi day day tux ak day naan ak day utiliser yooyu yëpp gis nga euh, benn version la baan d'accord naa nee naa la. waaw waa ji fa ma njëkk a fa ma ko njëkk fa ma ko njëkk fa ma njëkk àndadee ak moom. waaw mooy fi mu jëlee bakkana doomu aadama. waaw lu mu la mën di def. waaw mën di yegg. waaw egg ci di jël bakkana aadama. d'accord xam nga fi xam xam nga lu yàq réew mi àdduna. Mm-hmm. mooy dañuy xool xool ki fayu fàtte ki mm-hmm. tooñ. waa ji. waaw def na d'accord naa. Mm-hmm. mais nee naa la buñ ko toppee ba ca cappaandaw le Ndiaye def nañu ko li mu defa moo fay. li ñu ko def malheureusement nag. Ndiaye ma ne comme oh. man ñun ñu nekk foofu Futurs Médias ci RFM foofu noonu. Mhm. su témoin jotee. Mhm. yéen ñoon yéen a ma mën a témoin man maa mën a témoin aj abaa man maa mën témoin Ndiaye ci yow ba bari ñu doon wax. Mhm. ñooy ñu dëkk ñoom di añandoo ak ñoom di fanaandoo ak ñoom di yeewandoo ak ñoom lii nañu wax. nee nañ musuñoo gis ki ñu rey. di séq dara lu wàllu jëm wàllum mbëggeel jabaru waa ji ñoom ñoo wax lool kii fanaanoo ki ñu rey loolu la wax ka nga xam ne mooy sénégalais ba jiite brésilien bi ba foofu di seex tudd Cheikh Ndiaye di jàmbaar ci affaire lool loolu la wax taamee ñu ko dul may pour ñu teg ko uh-huh. mais ki nga xam ne moom la doon menacé naan fa see ne koo rey yi uh-huh. donc yorul woon sax numéro téléphone am da koo contacté ci Facebook bi uh-huh. ne ko jox ma sa numéro dama laa soxla mun ko ay sept heures du matin yow loo xewle mu jox ko numéro am ki la ko yónnee audio yooyu menacé ko ci la waa ji tiit. léegi léegi baan waa ji dañ koo jàpp. non waa ji jàppaguñ ko loolu ma jaaxal ci police yi Brésil su doon police Sénégal kon heure bi kenn waxatu ko. Ah, mais police léegi nag gis nga waa jooju noonu. waaw xaw ma ndax dinañ ko jàppam duñ ko jàpp mais bis boo amee mm-hmm. version. Mm-hmm. di nga considéré waat sa position bi. non non man aw ma position aw ma ci benn position fee yiñ ma jox moom laay jox askan wi. mais baan. waaw ñi ñu amagum nii. waaw nañu xool kii tey euh, ki nga xam ni moo war a wax. kii kii toppoon ci ray bi. waaw moom déglu ko. lu mu wax. problème bi moom dafa dem ba ëpp ñu loxo ñun ñuy nekk fii parce que fu mu toll nii ku nekk yaa ngi jël version bu la neex di ko commenter wala di ko waxee bañ na ko ba YouTube sax bëggatuma fa dugg di seetaan wala Facebook tey jii ak wax ju ñaaw ju ñu jël di ko teg si ki nga xamante ne tey génn na àdduna faat nañ ko génn na àdduna wax ju ñaaw ju ñuy jël di ko teg si kawam waaw métti nañ trop trop trop trop trop loolu lépp la moo ko waral mooy réseaux sociaux yi ak gaa ñi nga xam xamante xamul nu mu demee ku nekk jug di wax Assane Diouf jëwrin billaahi wallaahi taalaahi Brésil laa ko xamee. mais moo gën a ragal si àdduma. du tooñ maa moom buñ jàppantee xuloo. Euh, ban. waaw du boobu. waaw moo tax kay ma ne ko moo tax mais léegi. dernier élément bi tegoon na ko sànq pourtant mooy dernier élément bi. ki nga xam ne moom lañ moo toppoon ci ray gi. ay ca kon. waaw. affaire moom bu ma ko déggee moom métti na trop ndax Bilal moom. Facebook la ma woo quoi Facebook la ma envoyé message ne ma envoyé ma sa numéro ma envoyé ko sama numéro après mu commencé di wax audio yooyu quoi te man wax dëgg yàlla Bilal moom man ak moom jàmm rek la ñu seq quoi jàmm la ñu seq amuñu benn xaar ma yàlla man ak moom. waaw aw ma benn xaar ma yàlla man ak moom bi ma koy xam moom moom São Paulo la ma fekk quoi mook jabaram man maa fi njëkk quoi mais São Paulo la ma fekk mook jabaram foofu laa ko xame ñu seq jàmm. xam nga jabaram di liggéeyee si mata ñu seq jàmm loolu la ñu seq man moom jàmm jooj daal la ñu seq waaw foto yooyu moom muy wax moom na ko génnee bu dee photo yooyu muy wax kay moom moom nangootul correcté nangootul euh, yor whatsapp ne na génnee photo yi preuve kay moom boo ko yoree da ngay génnee photo yi da ngay génnee mais xam nga wax photo ay photo wax loo xam ne kenn xamul xam nga ba pare noppi yow waxatoo dara xam nga loolu tamit euh, xam nga doy na waar tamit même bu dee moom ay ay dafa yor photo jàmbur xam nga ay foto yoo xam ne moom nee na yor na ay foto xam nga sama foto mais na génne photo yi na ko génne na ñëw connecté wala mu ñëw mu mu génne ko dugal ko si internet bi nit ñi gis ko ñu dara nag jàmm nag la ñu seq nag jàmm la ñu seq muy sama mbokk sénégalais xam nga ñu seq jàmm bu ñu ma ko rombee nu yoo nuyu ko ñu seq jàmm jabaram ñu seq jàmm xam nga loolu rek la ñu laa seq ak Bilal moom mais amul leneen loo xam ne seq naa ko ak Bilal wala mu am leneen loo xam ne man bus naa koo wax jabaram loo xam ne yëfu caaxaan la wala leneen jàmm daal la ñu lañu la ñu seq jàmm waaw jàmm daal laa seq ak Bilal jàmm laa seq ak euh, jabaram jeex na amul leneen nag waaw loo xam ne man mus naa ko sax sama xel sax mus naa dem si si jabaram ba muy wax wax yooyu wax yu ñaaw yooyu quoi waaw wax dëgg yàlla moom bu dee yàlla moom dëgg rek la wax moom dëgg rek la bëgg moom Assane moom wax dëgg yàlla Bilal da koo tooñ quoi wallahi da koo tooñ mais ragal naa ni nag nit ñi nag ñoo leen boole moom nit ñi moom ñoo leen ñoo leen boole mais man musuma xam ne sax Assane xaritu Bilal la ak yéen yéen yéen yu bëri sax musuma ko xam si musuma ko xam ndax tamit maay dégg ay audio yoo xam ne ñuy wax naan man ak Assane ay xarit lañu dañ doon toog ak femme beeg nangam loolu moom c'est faux man ak Assane Assane moom man ak moom bokkuñ sax li man li may def ak Assane li muy liggéey sax bokkul xam nga nuyu daal moo seqee Assane dinaa ko nuyu loolu laa seqoon ak Assane ñu seq jàmm waaw. Mhm. mi ngi noonu. yaa ngi noonu kooku daal moo toppoon moom la Assane doon menacé naa ko maa ngi lay rey ah, moo waroon a topp ci liste bi. waaw moo waroon a topp ci liste bi waaw mi ngi noonu. Hmm? Ah, euh, waaw mi ngi noonu daal ah Bilal Bilal Bilal ci boppam moom la doon menacé. Assane moom euh, euh, kan kan moo ci faatu Bilal. Assane Assane moo faatu Bilal moo mhm. Bilal moom la ne mooy faate. Mhm. Assane Diouf la tudd Assane Diouf. Hmm. Assane Diouf <laughs> en tout cas daal. en tout cas daal mooy wuy këpp gaal te ci tefes. <laughs> en tout cas daal li ma ci xam mooy ma ni euh, baan euh, ma ni man li nga xam moom laa ci xam te mu leer ma ci. ci Diouf Assane ji rek wax Ndioufa rek. Euh, man xam nga la laa ci xam. waaw d'accord waaw d'accord lay Assane lay wax nga dëgg baan. Assane Diouf la tudd xam nga que xam man la laa ci xam te mu leer ma. mooy daara ci àdduna du jar di jël bakkanu nit. waaw. nit booy sëy moom dem ba confiance amatul. Mhm. wala nit ngay sëy moom dem ba euh, la nga doon xaar ci moom fekkoo ko fa wala euh, mu lay ji ngay am ay xel ñaar ak yooyu ci moom da nga koy bàyyi mu dem baan nga wuti keneen. dëgg la li nga wax dëgg la mais gi nga abaa tamit. Hmm? jigéen ñi xale yi jigéen hmm? ñu bari dañuy déglu xalaat li ma leen di wax nañuy tànn jëkkër. jigéen ñi góor ñi nañuy tànn jabar. c'est très important. fekk tox ko du yàmbaa bu tox ba réer nga dugg ci moom mu lay takk yu mel nii lay jur. ma tegal la ci beneen. jigéen ñi voilà. Ah. góor yu jële fii seen jabar yóbbu bitim réew. quatre-vingts yëpp ñàkk nañ. noonu la ñu mujjee. ñàkk ah. nag daa bari fànn. mën mm-hmm. ngeen a dem foofu ngeen tàggoo. Mm-hmm. Mm-hmm. mën ngeen a dem foofu mu turu jëkkër nekk fa ba pare muy lijjanti ay dossier. mais c'est vrai tey jii tey jii il faut ñu koy moytu quand même. cest à boo nekkee fii. dafa neexut a dégg mooy mais mooy lii dëgg. voilà euh, autant li nga waxee góor jigéen ñi nañuy tànn seen jëkkër. mais hmm. aussi tamit góor ñi nañuy tànn seen jabar. Hmm. seen jabar. am am na ñoo xamante ne ji leer na leen ne tey bu ñu demee bitim réew am fa teraanga yóbbu seen jabar du def dara lu dul jàppale leen teraanga ji gën a yokk. Hmm. mais euh, jigéen a ngi lang ci moodu moodu. lenn rek mooy pexe mooy na ko yóbbu mu lijjanti boppam. dëgg la mooy jur yii rek. c'est parce que xam nga lu parce que jigéen boo ko xoolee am loo koy jiiñ diggam ak genn góor. ça veut dire que doxinam des na. waaw waa ji Bilal def na def na def na lu rëy. loo xamante ne moom baat ba tukki du ci génn. def na Ndiaye mais nag nañu lijjanti luñ ko def. Ndiaye. Mhm. soo dee góor xam ne wóor na la ni yow mii lii moo tax ndaw si nopp la waaye su du lii ndaw si du la nopp. Mhm. ah soo ko takkee da ngeen ami problème beneen bi mooy tey jii da ngeen xale bu jigéen bu am 18 ans fan benn waaye fan benn tuxatu yàmba wala benn agresseur fee fan ko rek ñu tere ko ba famille ba bàyyi koog moom mu takk ko. baan fi ñu doon booy daaneel rek booy daaneel rek euh, ñun ñu dem à la présidence. léeg demee ba jëmmi jamono nag nga xale bu jigéen bi màgg yeewu léegi. nii nekk xam ni dafa juumoon day tax muy tëj ci bëtam ci ñeneen leneen lu baax lu sell. boo daanelee rek voilà waaye nekk sa biir nekk. baan boo daanelee baan boo daanelee rek. ñu dem à la présidence na ñëpp am jàmm rek presidenti kutonope pala barazanda garuisa zora rifeksi varifik dari gori presidenti la republik hangi pada dari republik ministrasi presidenti la republik nga xam ni mooy a historique située dans le quartier Dakar Plateau capitale du Sénégal construit en 1902 oui sama nekk pale bi yàgg mu nekk la résidence officielle du gouverneur général de l'Afrique occidentale AOF e Léopold Sédar Senghor Diatta 1960 ba 80 Abdou Diouf 80 80 Abdou Diouf 80 2000 Abdoulaye Wade 2000 2012 mu ñam fi ñamaat fi ñu xaaral ne ba xam kii woote bëgg a jël de la République kooku la war a door ak fan lay woote biir réew wala presse dafa jàpp rek kooka la. Alioune Sall son petit frère. kan Alioune Sall Alioune ah, dalal jàmm ñu dalal la foofu. waaw mais ça n'a rien à voir téléphone loolu bokkul loolu ça n'a rien à voir. ah kon feebar bi mën ngay wax téléphone kon. waaw waaw ah terewul laa téléphone parce que feebar bi balaa moo manifester ci yow day mat ay 14 jours. ah waaw. déet mais yow nee nañ cas positif nga yow 14 yi romb na ba positif nga yow. waaw loolu ci loolu laa bëggoon waxtaan ak moom sax. ah mbaa jàmm nga ci wax jàmm rek jox ma ko. non non dafa jàpp nii dafa jàpp nii. waaw dafa jàpp. waaw léegi bu yow mën nga wax ma noté bu ñëwee ma wax ma après mu rappelé la. waaw nee ko. waaw man Sénégal jaaxal na ma quoi moom maa ngi soog a comprendre li mu géré mooy lan. waaw mooy moom pourquoi gëmuñu pourquoi gëmuñu noonu man dama corona. man dama corona. lu tax Sénégal gëmuñu ah yéen Alioune ah, kan seeke lay problème ba mooy xam nga yow daa am xam nit nee nañ njëgalee na yoreel quatre cent yi quatre cent quatre cent yi xoolal monsieur Sow ah waaw s'il vous plaît dama la respecté man woote wu ma pour affaire u affaire u cent affaire u trois cent yooyu noonu man damaa woote bugg ñu wax ak président ci cas bi ne daal man dama Sénégal yi gëm man damaa corona covid 19 pandémie lép laa boole parce que sama chauffeur moo génnoon bi mu génne daal di dem ñëw andil ko jox na jox ma ko man ma yóbbu wëlbati ko jox ko soxna si ñun ñëpp ñu ngi teew eh, eh, eh, ko sa safoor a ko wax nee ko. ah. ah sa ko wax. sama jànk bi kon. jànk ban. sama jànk bi liggéey ci kër gi parce que moom yónni woon naa ko marché mu dem ñëw parce que bu ah, demee marché yow jànk yow amatoo jànk di dégg naa jànk ba am soxna si dàq ah déet kat maa la wax loolu saa su fekkee dafa am koo xam ne moo nekk ci biir kër gi di la di la seetlu yooyu yooyu muy seetlu yooyu amul solo yooyu amul solo. ah déet man daal li may laaj mooy yow Aline. waaw Aline Sall. waaw. yow da ngaa da ngaa yow da ngaa jël ci virus bi wala jëloo ci virus bi. man de waxuma la dee naa la damaa Covid 19 corona pandémie lépp laa boole lépp laa boole lépp a sama yaram fi mu toll nii di daw. ba pare Sénégal yi man Sénégal jaaxal nañ ma quoi ñoom daal foog deewoo rek mun ñoo gëm ni yow da ngaa da ngaa corona quoi. non man c'est que waaye nag bon je suis de tout cœur avec waa Guèye waaye parce que ñu ngi may jàppale. Ah. ñu ngi may jàppale bu baax léegi dama bëggoon nga ne président. waaw man dama fa bëggoon a ñëw ñu toog waxtaan ko ma wax ko carrément affaire bi ko lay manifester. pour ñëw fan. léegi bu ñëwee man dinaa fa jaar nuyu la soog a dem parce que gëj naa gisee ak yow. non dama ni Alioune. waaw yow pour ñëw fan Alioune Sall. pour ñëw ci palais bi waxtaan ak sama grand frère. pour gis président yow Alioune Sall mii nu ne yow te gars yaa ngi naan cas communautaire nga. <laughs> waaw non du cas communautaire ba saa yi xoolal su fekkee. Eh, eh, eh, sa safoor sa sa safoor xool nañ ko nee nañ dara dalu ko sa safoor daamul dara dalu ko kon kay yow cas waxuma la cas communautaire mais yow cas régional nga. non ni ñu ko testé moo baaxul monsieur Sow. monsieur Sow. Covid 19 au Sénégal.